mais dañu ñëw fii Kër masaar mais Malika tout juste Malika lañ nekk wala. non non a Kër Massar. ah ñu ngi Kër Massar mais ah. sori woo Jaxaay. non non jege nga ko. jege naa ko yaa ngi dégg waa Jaxaay. waaw. ok kon dañu ñëw fii ci euh, seen seen seen fi ñuy entraîner macha allah. Aldo ñu koy nuyu di ko ziar di ko féliciter tamit li nga xam ne def na ko man ci télé laa gisoon mais ñëw naa gis ko kuy jàppale làmb nii lay demee macha allah mu defal leen benn terrain ah wëralal leen ko waa Kër Massar mbooloo fii lañuy ñuy entraîner kon euh, big up euh, Aldo euh, sa liggéey rafet na macha allah dañ fi fekk si Jokkel Jokkel adversaire u Tarkinda bi kii lañ ñëw seet D'Artagnan borom épée bi lañ ñëw seet si expliqué naa ko D'Artagnan bi mais moom nee yooyu yëngulu ko moom Tarkinda bi ma bàyyi la nga nuyoo D'Artagnan alias Jokkel. waaw Pa Maga ñu ngi lay ziar. di naan ginaaw bañ sant yàlla di julli ci yenant bi. di ñaanal suñuy ñaari waajur fiñ te di gënal leen fi jóge di ñaan yàlla Sénégal jàmm yàgg fi. di jaale bombardier magam boobu nga xamante ne mooy Pape Dia. Hmm. suñu borom yërëm ko jégal ko. Hmm. xare ko àjjana. di masaw aussi suñu mbokku mbër bi Jules Balde Junior. di hmm. ñaan yàlla mu fëgg boppam ba mu dellu soit ci ay activité di nuyu Sénégal. di nuyu mbokku téléspectateurs yi ñuy seetaan ñëpp. du nuyu aussi sama mbokku mbër yi nga xamante ne bon guddi na mais toog nañ xaar ma. Hmm. ba ñu mën a def émission bi du hmm. nuyu tamit suñu entraîneurs yi. Hmm. père Baba père Diagne. bon Ndiaga mii ni du nuyu sama mbokku mbër yëpp daal. ak sama doomu ndey ma àndal nii. man tamit maa ngi leen nuyu ñoom ñëpp ah euh, muy waa équipe bi yëpp dañu toog xaar mais diggante bi. embouteillage bi balaa ngay agsi fii doy na waar fu ñu jaar rek dafay dafay xat mais encore une fois tiis bi nga xam ne ñun ñoo ko bokk Bombardier euh, mon frère Pape Dia mon frère ndeysaan Euh, mu dem bàyyi ñu fi bi muy nekk hôpital ñu ngi doon déggante mais xam nga rek yooyu moom bëgguma sax di ci dellusiwaat parce que émotion bi dafay xaw a grave mais daal ñu ngi koy jaale ak lu yëpp euh, Jules Baldé Junior yàlla na ko yàlla may wér. ak mm. yeneen mbër yi nga xam ni tawat nañ tey yëguñu ko ñoom ñëpp yàlla leen yàlla may wér. Mm. Euh, alors à une semaine du combat wala bokk cinq jours ci combat bi fan nga tollu Jokal. sànq toll moom ay kii rek la ñu def tàngal yaram bi nii rek la ñuy def. mais pare nañ quoi maintien rek la ñuy def mais pare nañ bu yàgg. Hmm. waaw pare nañ bu yàgg de moom. Hmm. maa la fekk yaa ngi takk rip ah. da nga nekkoon ci contact wala da nga doon laal nii tuuti rek. waaw xam nga écurie lañ wax. te hmm. bëre lañ wax. fii moom dañuy contact chaque jour dañuy physique chaque jour. takk gant chaque jour lundi ba vendredi. chaque jour loolu la ñuy fi ñu toll nii nii waaw non dañuy similaire rek dañuy comme maintien boobu noonu nga wax léegi léegi nii réveil musculaire rek la ñuy def. Mhm. waaw comme ko xam nga ñun ay mbër lañ. dañoo mhm. bëgg a bërentu. Mhm. amaana moo tax chaque jour dañuy tax a suuf daal. parce que promoteur bi dama doon dégg mu ne xam nga. na gars yi maintien bañati entraînement yenn entraînement yi bañ blessure amaat comme yow da nga amoon blessure daaw. ba ñu renvoyé woon combat yi xam naa loolu loolu yaa ngi ciy bàyyi xel bu baax. waaw mais xam nga ñun duñ duñ yàlla. ñun ay jaam kese lañ. ñun li war a xew xamuñu ko. dañuy sabablu rek. mais moytu am na waaw ñu ngi moytu lu ñu mën kenn du sañ kenn du sabab gaañu. kenn du ko sabablu sa bopp parce que métti métti dafa métti. ci doomi aadama. Mm. mais nag jaam ak pexam buur ak dogalam. Mm. na la nga xamante ne kenn du ko sabab sa bopp daal. programme yàlla waaw programme yàlla la parce que tey ji dañuy ñaan yàlla fekkee le premier mais bu neexee yàlla sax duñ ko fekkee. waaw noonu la demee ko am na waaw incha allah le premier. mais pare nañ. nga premier day am. mais dama la dégg ci ci ci face à bi ngeen def 2STV. Hmm. nga ni ko bii passé xaw ma lan la woon mais bii yoon le premier man la man maay def. waa c'est xam nga dafa am fu ñoom fu ñu waxee woon ma tontoo leen foofu noonu. Hmm. parce que ñoom dañoo gëmul yàlla sax ne xam nga nit bu ngeen seexee benn mbir ba dara dal ko le minimum sax nga yëgale sa téléphone. Hmm. nga ne ko diw mbaa yaa ngi tane. c'est le minimum. bu dee doomi aadama nga. mais ñoom gaañu naa sama gaañu dégg naa wax yëpp yu ñu ci wax. pour ñoom da nga daw quoi mooy wax. waaw daw pour lan ku bëre seize combat dina war a bëre ak benn Mama Lamine di daw. loolu yenu na maana. loolu yenu loolu xel nangu ko. ñu ne bu baaxul nag. man gaw ma loolu. ñoom ñooy càmbar ay baax na mu baaxul. ñun ay Baay Faal lañ dañoo gëm yàlla. Mm-hmm. Mm-hmm. ñun li war a xew suba. dañ koy bàyyi borom suba. parce que nit du may boppam suñ doon may suñ doon may suñ bopp kon duñ nekk ay mbër ay milliardaires la doon. noonu la demee quoi Jokal bëri na combat bu ne a ah. mm-hmm. jokkeel bëri na ay bëri na ak ay espoir yoo xam ne instant ñu ngi leen di dégg ci kaw. Mm-hmm. ay euh, mbër kaamil. Mm-hmm. Euh, rawatina mu dugg biir euh, Lansar. bëri faa ak Tidiane Faye. bëri fa ak Fëgala war a mën a ak kii di Maama Lamine lan la lay def nga dugg fa trois fois te bi nga fay mujjee dugg defet moo nga fa amoon. soo bëggee dëgg-dëgg le premier. comme jokkal bu dem adresse Senghor comme jokkal bu dem Mbapat. parce que ñun ay sportif lañu. ñun ñoo opté nekk mbër. Mm-hmm. Mm-hmm. ñun bés mënul rëy suñu kaw ñun am nañ ay ay kilifa yu nekk suñu ginnaaw yi nga xamante ne tey jii mm-hmm. def nañ ci ñun la nga xamante ne ñun dara faxul suñu bët. ñun dara faxul suñu bët. tey comme jokkal bu gaadu saagam. di dem village bëre ji. pour mbapati ji. le premier noonu la ma def. amaana nag. bis bu nekk ak ni mu toll. Ah. yàlla moo dogal le premier am coow foo tourné dégg le premier le premier mais le premier man dépassé wu ma parce que xam naa bëri na ak adversaire yu mais mais am lu muy pour yéen ñaar ñëpp. Hmm. parce que bii mooy sa troisième combat biir biir Lansar xaw ma. waaw waaw non loolu bàyyiwuma ci xel. parce que moom nee na le premier ngay mujjee dugg ah. nga fa woon defet bii man nag Maama Lamine dama ko. dafa bëgg fa duggaat. Hmm, man Maama dama xaw ragal Lamine bi de. ah mais loolu la wax de. parce que xam nga lu tax. moom moo doon wax le premier décembre ba le 31 de kii janvier moom moo ko doon wax de. farma gaañu. waaw nee na seex la. <laughs> ah da waxtaan xam nga moo doon wax loolu noonu. te boobu dara daluma. macha allah non damay bañ mu waxaat ah, leneen. moo tax daal waaw sëñ Fallou daal. ñu ñaan yàlla fekkee comme que cinq jours ci des daal. nañ dëxuñu dawal baatin mu préparé ak ay mooy préparé ma ak samay mbokk. moom ngay nee na moom fi mu nekk dafa pare. Ah, te li ma ah. gën a jaaxal. moom ba tey mi ngi dem dune. ma ne ko yow combat boo xam ne une semaine ngay dem dune. est ce que arrière tax est ce que arrière am nañ dara. am na dafay yokk. kan cere dool ñeex. est ce que keroog du ba ma gisee fële la. 2 ah, daa tegoon na damay nelaw a mën ba ma gisee 2 dafa bàyyi de. Hmm. bilaay man instant toll ni ndar laa def. ba màgget. parce hmm. que Serigne ma non man xam naa ne liggéey nga ñu ma ñu joxuma leen ñu lekk joxuma leen ñu naan. Hmm. mais pour kattan moom macha allah maanaam liggéey. Hmm. wax dëgg neex yàlla liggéey naa moom nag na yëg ci dindi. bu baax a baax mais combat lan la la jaral am na am na lu muy représenté. parce que mooy deuxième combat wu arène bi lutte avec frappe. Hmm. man dama foogoon ne mooy premier bi sax démb amoon na combat fële euh, ñuy félicité Mouniang production seen deuxième combat mais combat espoir bi yéen ñaar la. combat bu ñëpp di xaar combat amateur am na lu muy représenté pour yow. waaw xam nga lu muy représenté parce que capital la pour yéen ñaar. waaw combat bi nii. Mhm. xam nga tey ba nga demee jàmm gën xaw ma jàmm gën foo demoon wala jàmm gën. Ah, xam nga fi ma jëm. xam nga fi ma demoon fi nga jógoon. waaw. foofu may dëggul foofu dafa war a si. mais jàmm gën ñoo bëgg komba bi. waaw rawatina tey Kër Massar bi nga xamante ne mën na jàmm gën cinq. Mhm, mhm. Kër Massar ñoo soxla combat bi. muy jigéen di góor di mag di ndaw. fu ma tourné mbër da nga ñoo amel bor te nit boo ko amelee da nga koy fay nit boo ko ameelee bor da nga koy fay ñoom ñoo la yoreel bor man maa leen yoreel bor bor waa Kër Massar waaw ñoom tamit dañ la yoreel bor non loolu force la ñoom lañ ma yoreel yé man soo ma yoreel da nga fay bu yeboo sax nga rey ma mais est-ce que ki wax ne c'est da la waroon daan non non kooku war moon daan kooku bëggatuma sax wax ci combat ah moon ah, daan ah, kon am na noo génnee Euh, biir neexu la. waaw xam nga kii maanaam li nga xamante ne nit ñi fooguñ ko. Hmm. mu am. Hmm. ok. maanaam nit ñi buñ foogul benn affaire. Hmm. loolu am. keroog maanaam loxo dafa dem gémmiñ te yóbbul dugub. ñu bëri foogoon nañ ni loolu munul ne. munul nekk man mii en personne. man dama gëmoon ne loolu munul ne. waxuma ne dama ko foogoon ne mais dama ko gëmoon. loo yaakaar ne moo moo ko nekkal nag. maanaam juum juum naagu naagu waaw léegi nag naagu boobu noonu laa dindi tegee fële pourtant nag fa doon bëgg ñëw nii parce que sànq bi nga waxtaanee man nanga ne dafa mel ni ki jokkeel bu gàddu saagam rek di dem Adrien Senghor wala di dem dëkk ba di bëre pour man nga xaw oyofal mbir mi quoi non mais bés bi waru ma ko réer leen a rëy te moom oyofalu ko non moom waru ko oyofal waaw parce que waroo koo réyal yenn réyal yi waaw mais moom waru ko oyofal ndax parce que moom mooy kii bi nu mu tëratee favori bi. mooy favori <laughs> waaw loolu nga gis. a ah, moom la ko ñëpp teg. bilaay. wallaahi. da ngay dox si xel bi de. non non. ah yow la ngay dox di dégg yëpp mbalax ni neex na de. non nañu waxtaan ak Pape Maguette yow yàgg nga ma yow yàgg nga ma taalal micro. waaw waaw waxtaan. Mm, mm. man du ma waxantu. Mm. da ngay dox ci mbedd mi yow da ngay dox ci mbedd mi dégg ñu ne ah loolu du combat maama leen moo mën jogal. doo koy dégg yow. maa ngi koy door dégg sa gémmiñ. non wuy ma bàyyi bàyyi non non yaa ngi mbëtëfal nag. mbëtëfal mooy lan. bàyyi yooyu noonu. da ngay dem fee ñoom waa Tarkinda ñu lay wax ay wax nga ñëw ci Darta ñaar ñu lay wax ay wax. luy mbëtëfal moo Darta ñaar ñoo xew. nga ne mbëtëfal mooy lan. non di jéem a xam nga. di ma jéem a tuur lëndëm. tuur lëndëm waaw. te man dégg naa lool. waaw yàlla xam na ne déggu ma lool man sama bopp. man ah, ah. personnellement. man déggu ma lool. Maama Lamine da mooy favori bi moom ba la premier passe. te man personnellement man su ma la waxee rek. man mm. personnellement. Mm. man sama bopp jàppul loolu. ay kii mooy favori kii mooy favori. Mm. man personnellement sportivement. man jàpp ma loolu. ah man da jox naa ko favori. combat piège la pour yéen ñaar ñëpp man pour man. parce que yéen ñaar ñëpp ku ci nekk war naa mën a daan sa morom. non Maama Lamine mënu ku ci def fulla ak fayda. Maama Lamine mënu maa daan de. man jeex na. Maama Lamine. bu mu xalaat loolu sax. loolu munul ne. moom mu ne moomam combat bi yow ma ñëw nga ni ma Maama Lamine ma daan. ah Maama Lamine bu ñu bëree pare naa ko invité wax naa ko. naa ko invité géej. sans combat. nee na moom du xaar fenn. du ma xaar na ko waxaat na ma ko man. yàlla baax na bu arbitre sifflé. Mhm. dina xam kan mooy xaar moromam. ñenn du combat boo xam ne day taxaw di xaar. non combat du yàgg yow bu dee da nga nekk foofu di régler naan ko ay micro yooyu sax doo gis jël bi. naan ay mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatulah. doo gis jël bi doo bu soobee yàlla. kon say Seydina day teel a cadré li muy cadré. Seydina deux heures et ñëwal. cadré xam na arbitre bu sifflé. bu arbitre bu sifflé Seydina lu muy def. étincelle nga gis tàcc. moo. nee naa ko li mu defoon diggante moom ak Bour Sine loolu dina ko defaat arbitre sifflé mu dox ci sa kaw. Bour Sine ak Jokal lay def Bour Sine ak Jokal duñ benn. nee na nag Bour Sine a ës Jokal loolu la ma wax. ah nee na ma du benn moom moo mu wax la wax. Hmm. waaw. yàlla baax na. maa ma ay mbokkam duñ ko conseillé loolu sax. mais xeex par force day loolu force la. moom mu taxawee da ñëw bu ñëwul. kanam gi kay damay romb nit sax na ko dóoral. bilaay. Hmm. yow booy ñibbi nga ñam ci jël sa wàll mais dama gis moom dafa am benn dagg-dagg yow tamit nga amaat ko sa côté gauche fii fii. fan lex fii mi ngi nii dagg-dagg baa ngi nii. Hmm. la kontaan ndaamsaan bi la. xam nga ndaamsaan bi instant dool li bi moo teew. xaw ma luy ndaamsaan yàlla xam na wax yëpp xaw ma ndaamsaan. maanaam mbër mi. Ah. mbër mi moo teew Maama Lamine buñ buñ simee koo esaat. na xam ne mbër lay janool mbër. ah bii mbër bee ñëw maanaam mais est-ce xam nga ne yow. Hmm. dafa ñu bëri dañ la mere ci làmb hmm. dañ ne aw ma fulla ci làmb man daje nañu fële keroog seen face à ci kaw. waaw ma am lu ma la dëgg la am du la waaw. ñu bëri dañ ne fonkoo sa làmb. xam fonkoo woon sa bopp. waaw mais xam nga lu waral loolu ah? hmm. xam nga nit ñi maanaam dañ dul xam lépp li ci biir. maanaam li ñu naan les tenants et les aboutissants. nit ñi duñu xam li ci biir waaw. maanaam dañuy gis nit ki muy dem nii rek. am na la nga xamante ne nit ki la en personne. Hmm. waaw. parce que ñun fonk làmb moo ñu mm. bàyyi ci làmb tey ñàkkuñ fayda ñàkk fayda ba nga xamante ne dañuy làmbantu mm, mm. waaw mais nag nit ñi dañuy dañuy gëm dessin mais gis bi bëri Saalum Saalum Tidiane Faye ñeneen ak ñeneen ñu jéeg-jéeg gis Jokal commencé chuter lu waral loolu waaw Jokal bi bëri ak Tidiane Faye après kan laa ci teg fëgg la xam nga maanaam doomu aadama dafa day gaaw suul kii suul jëf waaw te ñun amaana suñ côté bii sax comme yeneen côté yi ni làmb doxee foofu noonu ñu ñu médiatiser ko noonu. Hmm. suñ côté bi loolu lañ xaw a manqué. mais Kër saar hmm. te boo doon jël espoir yi. Hmm. nga nga teg palmarès yi. ñun suñuy palmarès bokkul ak seen palmarès. ku ci mel ne Boy Seye 2 tey jii. Boy Seye soo ko doon jox adversaire tey. man daf may wax ne promoteur lii lañ may wax mais man damay jaaxale booy ñuy jox yenn mbër yi. li Boy Seye def ci làmb. ñooñu defuñ ko. kon ñun. ku am ndey la ak ku amu amul ndey. Mm. est-ce que dënga mu baax. ñun looloo ñu looloo ñu xawat kii ci mm, làmb. Mm, tey Kéba sa doomu ndey la. Ah, mën nga koo laajte ñun pour ñu am combat sax. yenn difficulté yi ngay am. xam nga tey jii da ngay dem ba jël la nga xamante ne sax waroo koo jël. parce que man mënu ma woon jógee ci Tidiane Faye jël fëgg la. loolu du yoonu làmb sax. mais da koy def pour bëgg a bëre. pour bëgg a après leneen bu la ci fekkee nit ñu ne ah. sa waay day fontu léegi te yàlla mi ñu tiim xam na ne fontu woo parce que làmb nga opté mhm. làmb yàggul mhm. noonu la demee quoi làmb moo demee noonu bi naka lañ koy waajee yan yan matuwaay la la la jokkeel jël parce que mhm. jour boobu ñëpp koy xaar waaw lépp comme lañ def favori waaw le premier moom na nit ñi jàpp na bés la ci biir bés yi parce que yàlla mooy def loolu des fois day ñëw non épée neex nag da ngeen di da non damay bañ waa damay bañ waa dagg sama xaalis. ah waaw waaw wax nga dëgg. mais dee benn bant rek comme ni ñu ko doon defee temps booy. Ah, gisoo joo bi nii nga def benn. bant non non joo bi nii joo bi nii mooy teew. ak joo bi ak EP bees la. jon jonwaar jonwaar laa ko jëlee. jonwaar la jëlee waaw jonwaar. joow kii la nii nii nii original. joow la rek joow joow kii noonu. joow la de defarlu rek. defarlu lan ah ñoom jot a defarlu lan bi nekk si bopp koñ bi nga naan jonwaar la. ah mukk loolu. mais cosaan dina ñëw. laa damay toog ci tànk yi. Jokal moom ku ko xam xam ne. buy ñëw day toog ci tànk yi cosaan. damay jég damay jékki-jékki pour man pour man waa Jonwaar ñooy wax ci suuf. <laughs> man damay jékki-jékki njool. waaw cinq minutes man pour man waa Jonwaar ay wax ci suuf kat. ñun dañuy jékki njool jékki-jékki gàtt bu soobee yàlla. mais moom nee da nga indi cosaan moom day indi cosaan. non mënul fecc cosaan ah. ah séeréer la bi. Maama Lamine bu indee cosaan. waaw mu indi. rëm tëmbi dem rëm tëmbi dem ak yooyu noonu. <laughs> mais cosaan dëgg dina ñëw mbër bi dina ñëw mbëru cosaan dina indi. laay mbër mi day ñëw mbër mi. le premier bu soobee ah le mbër bi mooy ñëw. waaw mbër mi mbër mooy ñëw. mais pas Jokal. Jokal kii yooyu noonu ordinaire yi. mbër mi mooy ñëw yokkal casquette yooyu. non non baal boobu baal boobu baal boobu. yoon casquette bi lépp la ñuy teggi indi cosaan bi yoon collier bi mooy ñëw damay dem sama grand frère Paul Maurice ak yooyu noonu xam nga. Mm-hmm. ñooñu ñëpp laa dem ñu jëkkati ay kii na ma takkal. Mm-hmm. ma takk jaaj yi. Mm-hmm. toog ci tànk yi. instant yii nii nii yëgoo taw féex. wax dëgg na yàlla hmm. sant nañ bu baax man laaj ko ba xam xam nga jéegul fu koy metti wala loxo dara du ko dal. yow dara du ko dal. mu oh. doo ko kii. non man xaw ma loolu. da ngay bàyyi ñoom rek mu ñëw xelam dañuy bëri ci fair play. boo bàyyi tarkindaa mu ñëw xelam dina xaw ah, bi daal gaan. Hmm. ñëw. Hmm. na indi armam. xam ne man du ma ko may. dara. tarkindaa bi. bu dee day léemu. na ko def balaa ma dugg ci biir géew bi xam ne du ko may jot bi. damay dal ci kawam de. Hmm. ndax man maa soxla. c'est pas risqué. non lu ma ci am jël. arbitre sifflé rek nga ñëw dal dama koy fël romb ko. mais xam nga ne mbër la. kaamil. mais maamam bokkuñ. Hmm. Ah, comme comme téléphone bi rek sa téléphone ak sama téléphone rek bokkul. sama téléphone ak sa man ban téléphone laa. xam naa ne maa la gën a mool la téléphone am sa téléphone. <laughs> ak yow nag nii lañ mel. keroog bi ma demee si maama Lamine nii la dañuy tooñ dañuy draay parce que ñun ñëpp ñun ñoo bokk. waaw ñoo bokk milieu bi nag te maama Lamine Baye Fall la sax. waaw Baye Fall ah, la waaw moom moom Baye Fall nit ku baax la quoi ñuy def ay li ñuy def moo tax dañuy waxtaan waxante dëkkante ci làmb lutte avec frappe mais bu kaf ñëwee dañ koy kaf. mais yow yaa baax nag. waaw non non non yéen a baax rek. yow champion nga yow borom baax nga. non xoolal ah Maguette. <laughs> xoolal yow borom baax nga barke yàlla. waaw ah, non léegi nag dañu woo gars yi que xam naa ne hmm. Mm. waa Fatick ñu ngi waaj. waa fan. waa Toucar waa Gandiaye. ñun ñëpp a Kër Masar moom Kër Masar moom pare nañ. Kër Masar moom seen saison bi la ah. waaw Kër Masar moom gars yi pare nañ moom jaxaay boobu noonu xam naa ne moom mbaadu ngeen boo jaxaay xam xam fi mu xam naa fi mu ne kay kër gi mu nekk waaw barke yàlla non de ba xam les murs ont des oreilles loolu de dëgg la te làmb moom làmb lañ wax. te Kër Masar laa dëkk maa ngi fi bëgg a yàgg. Ah, ki fi dëkk 97 ba tey kon fi woon ñëw. ah. wala da nga taw féex la fi am Maama Lamine bàyyi la Maama Lamine maanaam làmb moo ñu boole nii rek maanaam ñuy jaay bés bi. ndax xam nga tey jii nit du tëgg combat am. Mm. bon ñu ñëw mel ni ay muusu naan diwlin. ku nekk di xoolante di raayante. Mm. dañ koy safal ba mu saf bu jeexee jeex na. Mm. nee naa ko le premier dama lay daan le deux ma ñëw añ si ceebu jën sa gaale. bu soobee yàlla waaw gaa yi dañuy teew bu soobee yàlla mm. dañuy woo fogale séeréer rek waaw in way simna nun ngir ma nun yaakaara nun xoyaa nun na combat nene e di woo mbokku Fatick mm-hmm. Gandiaye Mbeel ak Jaw Tukaar xam nga waaw waaw Sibassor tamit dañuy ñëw noonu la demee Kaolack sama sëriñ sëriñ Mouhamadan Mbacke maa ngi koy woo ci combat bi ak mm-hmm. sëñ Cheikh Mbacke mm-hmm. waa Ñoojoor xam nga waa Jiloor waa Fimela waa Gaage waa Féliir gaa yëpp maa ngi leen di woo ci combat bi. Mm-hmm. di woo séeréer sëpp maa ngi leen di woo ci combat bi di woo tamit waa Touba sang si. Mm-hmm. ñu ngi leen di ziar di leen woo suñ combat bi ñu fasaale ñu bu baax a baax. Mm-hmm. di woo tamit Kër Masar gi nga xamante ne tey jii maanaam tey fii yeneen gox yi tollu ci làmb. dañoo bëgg Kër Masar dépassé foofu noonu. 100 pour cent Kër Masar bi. ñoom Boy Sey 2 ñooñu moom noppi nañu. xam naa ne moom esaat Maama Lamine day bàyyi àdduna moom ndax gars yi dañoo. noppi waa jàmm gën rek. non waa jàmm gën tànguñu. dara ñaay xajuñ ci waa jaama gën xam nga yéen yéen yéen jouru ngeen di xam luy dara ñaa jour làmb ñun man ñaa de bi jour film waaw yéen Mike ngeen ko jàppee mais yéen ñun dañoo dañoo ah. dañoo dañoo modifié Mike bi ah, def ko muy acteur xam nga Mama Lamine chef de bande la te ñun ay acteur lañ te ah. chef de bande cooki fin lay dee ah d'accord noonu nga ko bëggoon expliquer ñun ay darta ñaa lañ Ah, baax na ba ci ba le premier. le premier dara ñaay ñoo koy yoole bu soobee yàlla mooy Maama Lamine. waaw acteur bee ngi ñuy toog. te tôt ou tard. chef de bande bi day faatu. ok te le premier. ci nga koy moo loolu biti la fanaan. di woo sama mbokku mbër yëpp nag ñu teew. dama ci am ñaari doomu ndey ya nga xamante ne dañuy bëre. muy Siteu ak Boubou Diom. di leen ñaanal yàlla yàlla may ak euh, Unca. di leen ñaanal yàlla yàlla may leen ndam juróon ci bëri combat. même waaw. même même bis waaw moo tax ma ne la le premier ñoo ko moom gars yi dégguñu. seen décembre la de. ñoo ko moom ñoo koy yoole. waaw ah, baax na kon Seydina na teel a kii rek taal. yow tam ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm yaa sa caméraman yi nga àndal ak sa chauffeur bi ñu ngi leen di ziar bu baax a baax a baax waaw ñu ngi leen di masawu coono tamit. vraiment yéen amuñu seen fay ndax tey jii bu ñu xamee ginnaaw yàlla yéen la yow depuis ba may débuté maa ak yow yàgg nañu te amaana am na lu bari la nga xamante ne tuuti comme nga damaa tuuti tey sax waaye comme man nga <laughs> noonu la demee nag wax dëgg na yàlla di la ñaanal yàlla nag nga dem ba am sa télé bopp ñu la koy ñaanal bu baax yéene nañ la ko ndax nit ku baax nga xam nga sa caméraman yi tamit ñu ngi leen di béy suñu entraîneur yi mm. ñun mbëri fu ñu toog dañoo war di sant entraîneur ndax ñuy fayuñ leen mm, dañoo bàyyi seen yiite bàyyi seen lépp di sant suñu président écurie bi Aldo. Mhm. di sant tamit Kéba Kanté. Kéba mhm. borom baax bi ñu képp ko xam waaw noonu la demee borom drapeau bi. ñu tuddee ko drapeau bi. ngay wallaahi dafa stressé instant xam na ne waa xam na ne drapeau bi drapeau combat Aldo. Ah. Euh, Kéba ñu tuddee ko drapeau bi. am ngeen bëgg yokk stress te loolu. non ba xam amul pression. non mukk ah. gisoo père. gisoo sama entraîneur bi bi mu ñam. Hmm. gisoo ko xelam ma dal waaye mu ne ma fees man ginaar laay reere le premier de ma ko père mbaxalu saalum xam nga jour dimanche day baax nga daan ba pare dem reere mbaxalu saalum xaw a kii yooyu noonu maa lay invité wallaahi oh. non maa la invité le premier bu soobee yàlla ba le premier waaw kon yi ba le premier lañ fi fekki woon Jokal l'adversaire de Mama Ah, ñoom ñëpp ay gaañ lañu waa Kër Massar mbooloo dégg naa leen bu baax a baax a baax jaa ngi def di di wax tamit ñi mbër yi fi nekkoon nañuy bàyyi xel Kër masaar mbooloo bu baax a baax a baax. encore une fois Aldo li mu def nii may ko écurie bi loolu tamit lu rafet la na ñeneen ñi bonne volonté yi di def loolu di ko dimbalee yeneen écurie yi Jules Baldé Junior ñu taxawu ko bu baax a baax mu am wér-gu-yaram ak yeneen mbër yu tawat yu ko soxla tamit ah, père Balla Gaye ñu ngi koy bàyyi xel bu école de lutte Balla Gaye jaa ngeen jëf ba beneen yoon ba le premier incha allah rabbi stade Iba Mar Diop ah, Serigne Fallou ah, Kéba Kanté moom moom drapeau bi jaa ngeen jëf Seydina jaajëf jaajëf tamit Adama Dawda jiini lam, aa biɗeena pinda sofe.